Gris euh, benn kii bu ndaw rek xam nga ñun moom kon ni ñuy tooñee ma wax la ko ñun dañoo bëgg làmb loolu nga ñuy tooñee Gris de sa adversaire dañ koo jël euh, fan yi xam naa ne gis nga ko benn kii bu ndaw rek moom mu ne pare na ci lépp gis nañ sax ñoom ñu leen tooñ naan Gris 2 entraîné wul pataala mais tey sër la euh, Abdou Diouf tey yéen ñaar li mu wax yëpp crash mi crash noonu naan Gris 2 pataala instant bi pare na loolu yaa ngi no dégg. non man dégguma ko de. man temps man damaa bàyyi WhatsApp sax bàyyi woon lépp lépp yàlla xam na ko temps aw ma ko woon. Ah. billaay wallaay waaw parce que beneen niveau la man moom wax dëgg yàlla ay problème mu Abdou Diouf moom duma ci wax Abdou Diouf daal moom di xaar rek le jour ci ba yàlla ba du sama moroom bu ma mën a waxal ay wax waaw li ma mën moom mooy seq ak moom jëfanteeg jëflanteeg moom après mu passé ñu féete leneen ñun daal li ñuy waaj nii xaw ma pataalaa xaw ma sewrakin laa xaw ma dëxalaa xaw ma ci lan la mais daal li ñuy waaj incha allahu rabbi buñ ko indee suñuy supporter dinañ kontaan loolu moo ñu intéressé mais moom moom personnel am moom personne am quoi intéressé wuñu pour l'instant mais da da nga wax chaque jour benn wax booy kii nga ne Abdou Diouf ku la fekk seen combat ak yéen ñaar yàgg dalay yàpp no pour mu yàgg man du sama problème de mais pour ma taxaw di lem-lemal ak moom loolu noonu pas yeb sax mais dadul lu jaadu laa ma dafa am ñaar waa kay nit ku la mag ci yow la ñuy xaar xam nga moom gaynde la day jëflante même day bëre ay xale sax di xeex di riposte kon nag loolu waroon ko démb mu ko doon def ba mu ci tollee ñun tey loolu moo ñu war quel que soit alpha rek ñun dañu war a ñëw attaqué loolu rek moo tax ma koy wax mais man làmb moom garaawul waaw làmb garaawul ñu ngi waaj te buñ ñëwee incha allah dinañ xam ne ñëw nañ. sànq ma koy nuyu o passage moom pël bu rafet séeri mbër yi mu nekk ko xam te ne ndeysaan mbër yëpp a ko nopp maa ko dégg sànq mu naan mbër yëpp ko nopp kii li ma ko xamal su ma ko waxee kii day geer ak man rek sànq maa ko dégg mu lay tooñ nga naan instant bi da nga da nga changé waat beneen kii beneen gaal comme que da nga rangale woon sa gaal ba muy waaj a yaakaar da nga ci yëpp gars yi paa yeeg mag ñi xale faf booy boobu dëkk caaro yi nga xam te ni macha allah ñu koy nuyu au passage rëg-rëg ñëw këpp yalwaan bi ngeen ne da nga fiy bàyyi gaal googu noonu dem changé waat gaal lu wara a lool. Ah, boobu moom la boobu moom lañ koy dafa yàq boobu baaxatul. rëg-rëg moo ko yàq. waaw. Oh. rëg-rëg yàq hmm. mais <laughs> <laughs> si gàttal daal moo ko yàq. waaw ah. ah, noonu la demee sax noonu la demee moo ko yàq. mais gaal gu bees gi nag nan nga koy kii nan nga koy. waajal non barki alxuraan yooyu yëpp soxlawul décor ak rafet ak yooyu yëpp ko ci mais daal dina dëgër. loo xamante ne yàlla xam na ne balaa muy amati li xewoon bala muy amati du demee ni mu demee woon bii passé. te gaal gu bees gi Abdou Diouf ci bëgg moom garaawul Abdou Diouf moom. non yàlla xam na ne parce que ñun amatuñu droit di kii concentré wu ci benn nit wala dara dañu war a ñëw rek sunu sunu wareef instant yi devoir du ñëw fii naan diw mi la ñuy bëreel wala déet dañu war a ñëw rek taxaw gars yi xam ne kii am na benn beneen façon bu mu indee kon donc daan koy improviser pour Abdou bien sûr ñun ku ñu dóor dañuy fayu. yàlla xam na ne amuñu si doute dañuy pare ci bii wax ak ñi nga xamante ne tâche yi nga xamante ne moo ñu laal ñu setal ko ba mu set yàlla xam na loolu. waaw te te li ci kanam raw li mm-hmm. nag wax dëgg yàlla nag kii nga sama copain waaye ndax sama copain gaal gu mu bëgg changé di jaar gaal gu bees non Reug nag tooñ nga de mais euh, giri beneen bi mooy ñu gis ne arène nationale euh, gars yi dañoo problème choix mm-hmm. ndax euh, ñi ngi naan Père Falaye Balde pël bu fekkee daa am ku ma fàtte nga ak kii Père Balde lañ wax ak suñu papa Moustapha Ndiaye mm-hmm. ak kan Alioune ak kan pël kii arène national bi. ak kan waaw Fodé ba ñoom dañu am problème choix a à chaque fois damay gis nga naan làmb bu demee ba benn instant xam nga yii nii bousculade yii nii bi may dégg naan c'est honte est-ce que arène nationale tey yow boo doon joxe benn tour ah, yow kan nga yaakaar ne tey lii nii mën na koo symboliser. non arène nationale bu dee ñun ñëpp esprit lutteur la ñu yor dañuy war a xam ne tànn sa bu la neex la mooy arène nationale kuñ ko tuddee ci magu làmb yi rek mérito nga ko parce que ñooñu nga xamante ne dañu sonnoon ci làmb daj lu ne te encaissé wuñ ci tabaxuñ ci kër dawaluñ ci oto ñooñu kuñ ko ci tuddee rek c'est bon baax na waaw mais warul am choix mais nag comme que Pikine la nekk man de dama part personnel buñ ma laajoon ñun sunu ay or ak suñuy jamaa booy naar faal la faga un faga deux ñoom maam góor gi njaay mbéy gay ñooñ la ñuy sagoo namuñu leneen waaye nag bu nekkee Pikine mënoon nañ ko jox benn père bal Balde xam nga ñun jotuñu xam tamit foo Fodé Doussouba fan la dëkkoon wala déet wala dara mais comme que Pikine la nekk rek waroon nañ ko waroon nañ ko ko mënoon jox mais man nag ku ñu tànn ku nekk rek man d'accord naa parce que ñooñ ñëpp ko mérito parce que dañoo sonn ci làmb plus que ñun liñ ci daj te amuñu si dara ma doon ñëpp mérito nañ tur bi mais man comme que Pikine la nekk man je vote pour père le 31 octobre su ma la waxee le 31 octobre sa xel ci kan lay dem. man du ma jàpp date de man yooyu. octobre si la li nañ wax mandat Alioune Sarr di jeex. yaa ngi dégg sànq maa ngi ko doon dégg nga ciy wax. Euh, est-ce que làmb tey toll na foofu ñu dem ba benn instant naan diw diw ba pare ñeneen ñu gis ñeneen ñoo xam te ni ñu ngi ñëw yaakaar ni lii par vote la loolu nan nga ko gisee. waaw man de moom damay toog fii des fois di xultu rek ak sama gars ma déggee ñu naan way CNG mbër war a jiite nii ki jekk ne ci kii rafet na ki nite na kii ay affaire yooyu noonu daf may jàpp ay reer waaw am na personnalité yooyu noonu du mbir xam nga mbir lan la mbir da nga ciy sonn liñ naan ku sonn jariñu nit da nga ciy sonn après nga jariñu si mais tey man bu ma gisee ñu naan CNG diw lañ ko war a jox diw pourtant lii te ba léegi mosoo dégg ñu ne diw mérito na pour ñu jox ko ko ci ancien gloire yi ñuy tëgg parce que man damay jàpp ne ñoom ñoo deful seen devoir moo tax mais am nañ ñu doon taxawoo làmb après ba leen yàmb teralee ba ñu génn am na ñu doon taxawoo làmb tey kenn du dute kenn du ko wëri faneen kenn du ko seeti faneen man boog loolu laa ci xalaat parce que ñoom mën nañ ko ay kilifa lañ seen personnalité may na leen ko seen connaissance may na leen ko seen lépp may na leen ko mais damaa gis ne ba ñu génnee ci làmb dañu mel ni ku xawul nawloo làmb trop. parce que mbër yu bëri dañ koy dund ah, ñun ñii ñëpp ku ci dof tuuti rek dootoo nawlooti sa yeneen moroom yi parce que dañu seetlu mbër boo xamante ne da ngay développer ay affaire wala dara rek dañ naan la yow bokkook mbëri te mbër yu bëri dañuy doxee noonu dañ leen di gëmloo ci mbedd mi yow moom bokkook benn mbër yow yaa gën a civilisé si mbëri yi wala diw yow yaa gën a ëpp personnalité si mbëri yi tax yeneen mbër yi yow doo am considération bu bu baax ci ñoom doo leen teg fi leen war a teg te loolu day indi day indi day indi jaxasoo quoi waaw moo tax grand yooyu maa ngi ñaan même buñ ñekkul cette fois si président CNG ñu préparer ko pour ëllëg ñu taxawul làmb taxawul làmb di ko kaasal fu ne di laaj ay audience président de la république parce que ñoom seen niveau yegg na foofu di dem di ko wax ay problème mu làmb dox ci wax ci ba ëllëg ñoom buñ leen koy jox du am dut mais wax dëgg yàlla depuis ba ñu bàyyee làmb amul benn acte benn acte boo xamante ne mbër yëpp yëg nañ ko sentir nañ ci seen bopp boo xamante ne def nañ ko waaw loolu nag ñu ngi leen koy ñaan parce que ñun dañ leen bëgg dañ leen a def ay référence kon nañ continuer taxaw làmb. Mm-hmm. Gris Balla Gaye am na coow mais kon ni ngay wax rek à chaque fois ndax ñoom ñaar ñëpp say frère lañ mais gën a jege gën a yaay combat bi ñëpp concentré wu ci woon ñu dem ba benn instant mu am ay fay-fay combat boobu noonu lan ngay wax Père Gaston. Père Gaston mooy mu waxtaan ak doomam rek ñu jéem waxtaanaat ndax ñoom ñaar coow lee fi ne nii sànnante xeer mais ñoom ñaar bu ñu gisante woon nii boo ko fekkee da ngay xam ne ñoom ñaar dañoo far de du ñu juboo nag dañuy xuloo rek mais gëm naa ne mën nañ demaat ba trouver terrain d'entente waaw nañu bañ a daal xasante nañu bañee nañu bañ a xasante parce que xas rek mooy waral mbir mbir di gën a yokk bu xas amul rek day yombu lijjanti mais nit boo ko xësee xas rek loolu mën na mën na mën na kii ndax même bu dul moom sax a yeneen nit dañ koy woo di ko gonfler parce que képp ku ko bëgg rek loolu da lay naqari xam nga moo tax nañu waxtaan fexe trouver terrain d'entente kom làmb ji jëm kanam quoi parce que làmb fi mu toll nii soxlawuñu ay xuloo ay affaire yooyu amu ci njariñ. boo ñaata fàtte waaw day neex de wax dëgg yàlla combat la. dina waaw dina am bëre dina am xeex combat bu bu neex la sax. Mm-hmm. Tapha Tine bu daanoo Boy Niang dina am fu mu ko yóbbuwaat. ah bien sûr Boy Niang mbër bu mag la. lamb koo daan yaaw jaar sa boo ko daanee am na fu mu lay yóbbu. waaw parce que am na fi mu lay yóbbu mooy tey say victoire bu doon dix la onze la ñuy wax. parce que fii làmb ji bëri na ñuy taxaw fii naan la man maa ngi am quinze victoire quinze kii bu la limaloon combat yi doo sax xam ñan ñooñu mbër yooyu yan mbër lañ. li am importance rek mooy nga def jéego avancé. Mm-hmm. Mm. Boy Niang daan loolu tamit da koy gën day koy gën a confirmer da koy gën a confirmer man doon naa kaas lu bari naan giri du fi bëreeg Boy Niang man dama ko doon wax waxu giri ne ko Boy Niang moom xaw ma kan mais boo ko jëlee man maa lay dóor bara de sa tànk bi damm doo am parce que gisuma mu daan benn benn kii benn VIP daanul kenn ci gars yi ba pare yow au moins daan nga Tyson daan nga Yékini daan nga Tyson daan na Eumeu Sène daan na Bombardier xam nga moom daanul kenn ci grand yi ba pare bëgg bëre yow loolu man loolu nangu loolu ñun defaluñ ko ko ñun keneen defaluñu ko ñun yoon yu metti la ñuy jaar di ñu jox suñu ay morom ñuy kurti kurti kon loolu warul yombee noonu man moo tax damaa mosoon contre combat boobu mais bu daanee Tapha Tine ku mu soxlaati boo bañee rek da nga da nga da ragal. gi. waaw combat la tamit. combat waaw si kan si guy la loolu kay dañ ko war a def demi final final nag man ak Abdou Diouf guy gi ku daan rek ñu daje ndax foofu. kii kanam gi day xonk xoolal bëti commencé man nag melu ma noonu. loolu day mel loolu day mel ni rancunier. Ah. non Reug Reug nag wóor na yàlla ni nga def. <laughs> Reug nami mënoo ñu jaxase moom xam na ne man moom moom borom baax la. c'est un athlète boo xamante ne bëgg li muy def lool. waaw di si daj ay coono yàlla na ko yàlla may jàmm ak salaam a mais nag c'est un adversaire tamit boo xamante ne làmb di ñu ñu boolewaat mais moom xam na ne man aw ma problème yooyu man moom du ma rànki ñee man moom mm. yàlla baax na quoi mm-hmm. Ah, Gris 2 la woon wax dëgg yàlla mënul ñàkk daf ñu koy tooñee sax naan da ngeen a bëgg làmb mais nag ah, mu nekk koo xamante ni ah, dafa bokk su ñun dafa bokk su ñun ñëpp ndax tey ku ko soxla rek dan nga koy am mu nekk ku baax tamit koo xamante ne nekk taalibe di ko ñaanal bien vrai que nag maa moom dañoo xuloo dañoo xuloo mais nag wax dëgg yàlla borom baax la daal di ko nuyuwaat nag bu baax a baax pël bàyyi nga def yow li ma yëpp boo xamoon di ko nuyuwaat nag bu baax a baax pël borom 37 far yi nga xamante ni 30 ba ma compté mbër yi ñëpp 37 personnes te am na ñeneen dinaa leen ko wax di ko bégeewaat bu baax a baax a baax ah di ko bégee ah moom Thiam borom euh, deux cent deux cent vingt et un mu nekk koo xam te ne Thiam su su ñun la bokk eh, Gris de lan ngay tàggatoo. waaw di tàggu ñëpp rek di ñaan yàlla tu màggal gi ñu jëm ci barki Cheikhul Khadim ñëpp nekk ci jàmm ñëpp nekk si jàmm. waaw di jox chauffeur yi ñu def nànk ñu màggali si jàmm ñëw ci jàmm di ñaan yàlla luñ fa ñaan rek yàlla nangu ko di ñaan mu Muntaxa yàlla guddal fanam may ko wér di ñaanal sëñ Babacar man soor yàlla guddal fanam may ko wér ba liggéeyu kër maamam Seydi Hadj Malick mu yàggali ko ci jàmm di nuyu Sénégal yëpp di ñaan yàlla feebar yeeg yëpp jeex activités yi reprendre ñëpp nekk si seen jàmm. Euh, kàggu di ko remercier bu baax a baax muy sama cameraman mu nekk koo xam te ndeysaan dafa disponible yëpp di wax nag à après gàmm incha allah liñ ko doon ñaanal man Pël Lamine Babacar ci kattanu yàlla day fas soxna xam naa nag wax dëgg yàlla ba pare dafa am combat loolu ma jaaxal mais nag gis nañ fi mbër yoo xam te ni dañuy préparer combat am soxna ah, mais Gris 2 ñu koy euh, mu nekk koo xam te rendez daal fii ci Lac Rose fii la mariage bi day amee. lépp nag ci kàttanu yàlla après gàmm incha allah la kañ la pën la may deuxième njëkkee man la may première njëkkee <laughs> remercier ñëpp.